صادق غير لول Cheikh Abdoul Aziz Bara asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général kullu murit yàlla fi yàgg lool te ànd ku wér Serigne Ahmadul Muxtaar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim euh, ci kilifteefu Serigne Moustapha Mbacke jëwriñu Cheikh Mouhamadou lamin baara Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke gépp waaye ci kilifteefu Serigne Abdoul Karim Mbacke Mbacke Bari xalifab Serigne Abdou Aziz Bara mbokk yi su ngeen déggee jataay bi su ngeen déggee bayt yooyu jiitu ak ni ñu ubbee xam ne ñu ngi waaj bis bu mag muy bisub Serigne Abdou Aziz baara moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke kañ lay doon mi ngi doon talaata juróom-ñaari fan ci wa ci weeru mai atum 2024 fii ci Touba Guy Mbind ñu ci woo mbokk jullit yi mbokki taaliba yi xarit yi yi dëkkandoo yi sëriñ Abdul Karim di ànd ak ay rakkam waaye di ànd ak taalibe yi ak ñëpp di ci woo mboolem koo xamante ni da ngay wax ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna muhammadan rasulullah mbokki nag ngir woote bis bu am solo boobu dañuy jël kàddu gi jox ko sëriñ Modou Baara moom sëriñ Abdul Qadim muy wax ci turu sëriñ kàddu ci sunu kilifa te Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké xalifatu sëriñ di jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine di xalifaam eh, boo bu ngeen gisee jataay bi ci barab bi di guy mbind dafay daal di am lu muy tegtale am lu muy firi am lu muy fàttale loola nag moo di bisub sunu jàmbaar ju màgg ci di Cheikh Abdoul Aziz Mbacké di doomi Cheikh Mouhamadou Lamine ibnu Xaadimu Rasul bisam moo dëgmal si sëriñ Moustapha nee na mbooleem bunti këri Cheikh Mouhamadou Lamine Baare yépp góor ak jigéen mi ngi soññi njaboot gi yépp ñu def ko seen birum bopp bisub Cheikh Abdoul Aziz fii ci Touba fii ci Guy Mbind bisub njaboot gi yépp la mi ngi koy fas yéene ànd ak sëriñ Abdoul Karim Mbacke mii nekk ci bopp njabootu ko euh, sëriñ Abdoul Aziz te mate ko sëkk wuutu ko ci barab boobu bés bi nag sëriñ Moustapha nee na day mbirum boppam te moom mi nga xam ne da koo def mbirum boppam mooy Cheikh Mouhamadou Lamine kon bis bu bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara la ndax sëriñ Abdoul Aziz ku ko xam ci guy mbind ak wuutu gi mu wuutu woon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ginnaaw magam ja Cheikh Mouhamadoul Hafiz taxawaay bu rafet bu mat bi nga xam ni taxawu na ko mboolem ku mbokkal sëriñ Baara ci lépp lu tàbbi woon ci loxoom te jëm si ci njabootu sëñ Baara kenn ku nekk gis na ci sa bopp kenn ku ci nekk taxawu na la fam la war a taxawoo góor ak jigéen mag ak ndaw ba ñëpp mag sunu jur yi wuufoon na leen nawloo leen ànd ak ñoom ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa nun ñii di seeni njabootam defoon na ne nun ni njabootu boppam taxawu nanu jàngal nanu yar nanu toppatoo nanu loolu nag warugar la woo xamante ni moom jaanam wàcc na bu ñu demee ba jamono agsi fii nag bisam ñëw sëriñ Moustapha nee na képp ku bokk ci sëñ Baara na ko def sa mbirum bopp woote bi nag yemul ci kër sëñ tàmbaliwaay bi day fii waaye sëñ Moustapha nee na mi ngi ci woo jullit ñëpp di ci woo mboolem yoonu murik te di ko def itam nag ci ndigal ndax sëriñ Abdul Karim lu def lenn loo xamante ni dëppawut ak ndigal ndigal lii nag bàyyikoo na fa mu war a bàyyikoo ci Cheikh Mahmadul mun yàlla na nag fi yàlla yàggal jaar ci bàyyi Ahmadul Maxtaar mi yilif ñaari kër gi dikk ci moom mi Cheikh Moustapha di jëwriñu kër gi bésu boppam bii it ki mu ko teg ci loxoom mu di ko topp doot Cheikh Abdoul Karim kon taalibe yépp ak fu ñu fi mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew nañ xam ni liggéey bi ndigal lañ ci am ñu ngi leen ci woote nañ ci def paste bu mat sëkk bis nag bu fekkente ni at mu ne benn yoon la cay am kenn ku nekk da nga ko war a yittewoo ndax bu la rëccee déwénati rek te kenn ku nekk xam na ni sallallahu alayhi wa sallam da wax ni allahuma ijal xayra ayaami yow ma alxaaka nang ma defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi may tase yow loolu Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa xadim rasulihi daan ko wax képp koo xam ne taxaw nga taxawaay la la war nekk ci la la war bis boobu sa bisit bu dikkee noonu lay mel kon bisub Cheikh Abdoul Aziz bu ñëwee kenn kum fi fekk ku ne te yàlla nañ fi fekk nun ñëpp war nañ cee góorgóorlu am ci pasteef bu baax sëñ bi mi ngi ci soññu bokk yëpp di ci soññu njaboot gi yëpp bis bi talaata lay doon dëppoo juróom-ñaari fan ci weeru mai sëriñ Moustapha nee na lu ci waay man ci jàng alxuraan ak xasaay sellal ko ba mu sell nga def ko addiyee sëriñ Abdul Aziz ak mboolem ñi mbokk Cheikh Mamadou Lamine ak mboolem ñi mbokk sëriñ Touba ak mboolem mbokki taaliba yi jiitu ji woon ñooñu ñëpp nañ tàbbi ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na te bisub Cheikh Abdul Aziz bi man na ko yàlla na yàlla dégg ñaan googu te defal nu ko ñu ngi balu ñëpp ak di baal ñëpp ak buntu kër bu nekk ku fi teewal am ku la ñu fas yéene fàttaliku nag seeni waajur wu tedd woowee nga xam ne léppam diine lislaam rek euh, ci jàng alquranu karim jàng xasaayit salaatu ala nabi li nga xam ne moo doon dundam ci loolu lañ ko fàttaliku euh, moo tax sëriñ bi di si woo mboolem bokk yi xarit yi soppi wëllër yi rawatina nag taalibe yi rawatina it dongay daara yi nga xam ne si ne dañoo nekkoon di sàkku ngërëmal sunu borom ñu ngi leen di soñu di soñu ci yéen jabor ñu taxaw ci niñ ci daan taxawé rek ci bis bi di soñu mbolim guy mbind taxaw bi ngeen ci daan taxaw ngeen taxaw ci bisu ku tedd ko jëmm ju tedd joj nga xamne nak euh bari nay ngërëm lool de man nañ see wax lu bare bare tambali ci Cheikh Mamadou mustafa mbake ñëw ci Cheikh Mamadou Fadal ñëw ci sëriñ Abdoulaat ñëw ci sëriñ Abdou Khadir ci sëñ Saali su ko waxtu mayoon kenn ku si ne nam ko seere ci taxawaayam ci diine lislaam ak jubam ak njàmbaaram dañ ko wax par benn benn waaye waxtu bi moo ko mayul waaye ñooñu kenn ko ku si ne ba mu koy seere moo jëmi borom Tuubaa jëmm la woon joo xam ne daal ku mel ni moom yombut am na ñaari seere it gannaaw bi mu wàccee liggéey sëriñ Murtala Mbàkke Mbàkke jëmmi sëriñ borom tubaa moo ko seere xamal ne jëmm ji fi bàyyi ko di Cheikh Abdoul Aziz Sy ku jege nabi sallallahu alayhi wa sallam sës na ci maamam maamam sës na ci nabi sallallahu alayhi wa loolu la ko seere sëy Cheikh Mamadou Murtala day ku mu seere ci suñu borom nangu ko fu ne taxaw ne fa taxawal fi diine l'islam ku mu seere ci diine lislaam sunu borom nangu seere soose sëriñ xaadim awa baay seere nok seere sa yéeme na ndax ne ni maa ngi wax ci kàddu mboolem njëbatu sëñ Baara Mbàkke Cheikh Abdoul Si Baara Mbàkke mi day taxaw gi mu taxaw njëbatu sëñ Baara bu fi sëñ Baara nekkoon ak si fii si taxawaay di taxawu sag njaboot ba kenn ku si ne mën a taxaw jamono nga yokk ko sab taxawaay ba seenu njaboot kenn ku ne mën a taxawu njaboot àdduna nga yokk sa taxawaay ba ni mu wàccee liggéey at mu jot lu mu def ci njaboot yi boo léegi mu def lu ko raw jëmu jëmu sedd ngi jëmu sell ngi jëmu joo xam ne ji eh, taxawaayam ci njabootu sëñ baara day eh, mboolem njabootu sëñ baara ñoo ma jox kàddu ma jottali kàddu yooyu loolu suñu xaadim aw baw loolu la ko seere seen mbokki taalib yi nga xam ne ñoom lañ seexal Cheikh Bensis ci bis bi nga xam ne moom lañ fekk mooy bisu Cheikh Bensis ñooy jàpp ko le 7 mai bi di ñëw tombeeg eh, ñaar fukk juróom-ñaar juróom-ñett si weer wolof ñu war ko taxawal fii si pencum Guy Mbind ñu ngi siy soññi mbokki taalibe yi nga xam ni ñoo seq kër si Abdou Aziz ak njabootu Serigne Bara yëpp di si soññi rawatina daayira yi nga xam ne ñoo seq kër gi rawatina fédération Centre Abrar bi nga xam ne ñoo nekk si penc ak daayira soppay si Abdou Aziz yi nga xam ni suñu laaj Mor Kay moo ko jur ak seen Xadim Mbàkke mbooleem mboolem fu daara ma nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di fàttali bis bi di leen di soññi góor ak jigéen mag ak ndaw euh, di sàkk ñu kenn ku ne si ñun fexe ba bu bis bi ñëwee kenn ku ne la jàppoon nga bàyyi ko ngir si bis bi ngir ñu jëmmal bis bi kenn ku ne foo man di nekk nga teel a ñëw ngir ñu jàpp si liggéey bi ñu ngi soññi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw fanwaar nañ leen ñu ngi soññi euh, mbale mi le 3 bii ñëw le trois mais fépp fu waay mën nekk sa bokk ci kër gi doon fexe teel a ñëw setal pénc mi setal kër gi ba nga xam ni képp ku fi ñëw euh, bant du la fakasal wala xeer du lu teq kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci turu président euh, sët sëñ Abdou Aziz Bara yëpp muy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara moom seen Cheikh Bara moo leen di yëgal di leen fàttali conférence bi bi ñuy def ci turu sët sëñ Abdou Aziz Bara yi dina xamal ne bu xëyee danañ jàng alquran bu buñ demee ba 4 Euh, danañ euh, tàmbali njàngum xasida demi jëmale vingt et une demee ba vingt et demi Serigne Abdou Aziz moom Serigne Amar Fall Baara dana waxtaan ci dunduk Serigne Abdou Aziz Baara suñ demee ba pare Serigne Fallou Serigne Fallou Boussa moom Serigne Assane moom dana mooy def waxtaan bi thème ba nag day dem ci am kilifa njariñ yi mu am ak ñàkk kilifa lor yi nga xamante ni moom la am dañu fa rendre hommage sunu maam soxna Gàddu Buso euh, sëñ aboo Madiane nag moom lañ ko tudde ñu ngi ciy woo mbooleem jullit yi ak taalibe yi ak mbooleem ëtti sëñ sëñ Tuubaa yëpp ñu yëkkati suñu kàddu ci ndigalul sëriñ Abdul Karim ñi nga xam ne moo nekk ci boppu njaboot sëñ Abdul Aziz ak mbooleem njaboot gi yëpp ci góor ñi ak jigéen ñi ci ndigalul Serigne Sidi bi nga xam ne moo nekk ci commité de pilotage màggal gi ak sëñ Cheikh Aziz ak mboolem seen rakk yépp euh, sëriñ bi di wax ni mi ngi woo képp koo xam ne soppe nga soppeeb sëñ Abdul Karim nga ak foo mën a nekk wala ngay taalibi wala ngay wala réem ak taalibi yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi bàyyiwul kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew euh, waa diaspora bi ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku Euh, sëriñ Abdul Aziz moom Cheikh Mouhamadul Lamine muy doon nag juróom-ñaari fan ci mois de mai bii ñu jëm dëppoo bisub talaata ñu ko defee fii ci tuubaa Guy Mbind sëriñ bi nag képp koo xam ne euh, soo jëyee sa xel dem ci sëñ Abdul Aziz wala sam xel di dem ci sëñ Abdul saa su nekk sëriñ bi nee na mi ngi lay woo ci bis bi. ak daayira yi nga xam ne ñoom lañ tuddee sëñ Abdul Aziz ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di woo ci bis bi nga xam ne. Euh, lépp xëy na ci ñoom la war a tàmbalee ndax taxawaayu bis bi lépp ñoom la war euh, mboolem donga yi fu ñu mën a nekk moo xam ñu ne ci wane moo xam ñu ne ci bitti ñëpp sëñ baa ngi leen di woo ci bis bi mboolem dongo yi jaaroon ci daara ji yëpp ak seenu njaboot sëñ bi mu ngi leen di woo ci bisu sëñ Abdul Aziz bi bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin wa ala alihi wa ashaabi al axyaar wa sallim tasliman kasira mbokki jullit yi mbokki taalibe yi كي نقول عبد الكريم والشيخ عبد العزيز سيدنا عبد العزيز بارا موي نيوتي تي بيس بي ني ني جانليل كو موكاي ديف اي كليفه مي كو جيتو وون شيخ محمد المصطفى اك شيخ مو نيو تاي اندك mboolem njabootu serigne Abdou Aziz bara mboolem njabootu serigne bara ak talibé yi pour ñu jëmmalat bis bo la ci serigne bi ñëk ñam ci ñëk wo nak moy Cheikh Mamadou muntaha ak yëgal mom mi nga xamné moy mo fi togal serigne Touba di ci tek soxna serigne ahmadou makhtar

et son chef de gouvernement Ousmane Sonko ak l'ensemble de son gouvernement nee na mi ngi ko yëgal tam koo xam ni doom la ci kër gi doomu sëñ Abdou Aziz la taalibeem la muy maître Madické Niang cam am ci taxawaay bu rafet ci kër gi sëñ Abdoul Karim daal nee na bis bi la sept la mardi la sept mai 2024 muy sakku ci talibé yépp ak fu way mëna nek lo mëna jang ci alcorane karim ak hadis ak ak ak euh, xasaayid serigne Tuwaay nga ñaanal ko Cheikh Abdul Aziz bar Mbakke yalla yok léram ca barsax tasnu ci barkem te mayru nu fan wu gudd ak wér yaram bañ mëna continuer diko defal bis bi alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk kon bis baangi nonu di màggalu serigne Abdul Aziz ibn Cheikh mahamoud Lamine bar Serigne Abdoul Karim nee na mi ngi ciy woo ñëpp waaye tamit ànd ko ak ki nga xamante ni mooy soxna maam Xari Mbàkke bintu Serigne Abdou Aziz moom it ak mbooleem soxna yi nga xamante ni ñoom la bokkal Serigne Abdou Aziz mbokk yi nag bis bi comme ni ko Serigne Cheikh baara waxee ci wàllu sëy bi bu ñu nee suba la conférence bi bis boobu dañ ko tuddee Serigne Abo ibnu Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbàkke waaye bu ñu xëyee tamit màggal gi bu ñu xëyee jàng alquran xasida bernde ak saafante bu demee ba tàkkusaan sëriñ bi génn ñaanal mbooloo mi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm sëriñ bi nee na képp ku ci teew mi ngi ñaan yàlla nga dëppoo ngërëmal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké dëppoo ngërëmal sëriñ Touba Xaadimu Rasuul wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala sëriñ Abdoul Aziz Bara doom la ci Bara sët la ci Jaara